Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa nag damaa nekk ci yoon jëm kër ma ñaaw nii ak a neexoon ma nekk ndakaaru tey mbaas boo wala fan yi bëgg raddu ci wax ji nga xam ne wax na ko waaye fi ne ah, ju bari lënt nag ndax salafi yi nga xam ne diw daa bëgg a wax ne damaa topp salafu saalix moom lay méngaleeg salafi yi gi ñu doon ñoom te yàlla ak la preuve bi mooy mënulaa indi yi ñuy wax ñoom ku ko daan wax avant ñoom takk fiir julli ñi nga xam ne moom lu seen imaam yi def bocc ay si dal ci seen kaw ay tawassul ak tabarruk yu bëree bëri ñu àgg feek julli ñi fi ñu àgg ak ñoom ak masale yu bare bëri damaa jox misaal ci yooyu waaye seen pas-pas yi mën ñu laa génneel kuñ ci dëppool avant ñoom même zahab yi ma muy tudd mbirum tawar tabarruk ak tawassul ak yooyu moom sahabi zahabi bu amee lu muy def bu amee lu muy def zahabi bu amee lu muy def mooy contre ña koy weddi ñi ñi ñii dàqal ahmad lu mel noonu sax zahabi day indi waxi ahmad di leen wan wan ne leen li ngeen waxal ahmad du dëgg ahmad day tabarruk day day nangam même sax sifaat yi nga xam ne ñoom si lañ seen coow fa la gën a bare wax ne zahabi maa ngi e, maa ngi jégalu dafa am ku ma woo même yi mu mu mu muy wax sax xam naa sax bu dee kitaabul uluw bari na luñ mën a wax ne dëppoo na ak ñoom waaye uluw nag moom la zahab yi njëkk a taalif ci seeru alami nubala boo demee ci seeru alami nubala tafwidul maana gi nga xam ne moom la wahab yu gën a bañ tam dëppoog tamit aqidatul ashariya moom la ko zahab yi wax askan na ko ci salaf moom ci boppam woote na woote na ko te ku ko weddi man ma wan la paas bi ci séeru aala bi nu wala jéem nañ ko tawil tawil wax ju ne wet gu ne nag waaye mënuñu ci dara na wax ja daa leer tafwidu maanaahu almaaluum ila qaaili ci sifaat yi nga xam ne ñoom moom loolu la ñu a dégg ñoom kon zahab bi muy ci euh, sifaat yi wala muy ci masail euh, fiqhiya yi wax ne sax ñoom la dëppoon loolu dafa teel ñoom nañ ma wax yii nga xam ne moom la ñu wax ak de kan moo ko mos a wax ci salaf salih kan moo mos a wax xawaadisa la awwala laha comme ni ko ibnu taymiya waxe kan moo ci mos a wax allahu istaqarra ala al arsh benn salaf yi rek waxuma sax ñaar kilifay salaf yi kenn nit ko ko ci mos a wax laa bëgg nga leeral ma ko kan moo ci mos a wax ne yàlla toog na tamit sanat bu wér baa ci moom nan na bokk nag ci al ahlul qurunul mufaddala kan moo ko ci mos a wax nañ ma ko leeral kan moo ci wax ne istawa bi zaatihi kan moo ko ci mas a wax nañ ma ko leeral bu fekkee am nañ ko kan moo ci mas a wax ne allahu fi jihatin gayri maxluqatin ci salaf wala sax mu ne allahu fi jihatin ci salaf saalih rek kenn kenn kenn laaj soxla wax soxlawu ma sax ñaar kan moo ci wax ne lillahi yadun ala zahiri luga ibaara boobu laa soxla ci malik wala ci safii wala wala ci njamonontel kenn ni rek soxlawu ma sax ñaar kan moo ci mas a dàq sax tawassul ci salafu saalih xëy na Abu Hanifa fa ngeen mën te Abu Hanifa la muy wax ak la ngeen di wax yàlla yeeli kooku iqsaama ala allah boobu da ngeen fay bu fekkonte ne sax wax ji wér na nga xam ne am na sanad baag ci ne am na maanaam du lu ngeen ko tekkal du du lu ngeen jublu yii ngeen di wax ci ci ci ci usuuli wala ci furuwaay kan moo ko wax ci salafu saalih kon bul fekk benn waay boo xam moom dane day topp salafu saalih te nekk ci la salaf newoon yow nga di ko nuróoleeg sa bopp te yow nekkoo ci la salaf ne loolu moo moom moo moom ma a bàyyi xel yeneen wërd yi ngay wax yëpp moom waxi dof la ndax wërd moom doonul sax lu bees ak wërd doonul lu bees yi ngay waxal Cheikh Ahmad Tidiane yooyu itam du dëgg Cheikh Ahmad Tidiane waxewu ko noon waxul ne koo jël rek da ngay dem àjjana waxul loolu ah, defoon nañ ci a waxtaan léegi fan yii la ci ginnaaw defe naa defe naa ni ah, ku ma gis dem àjjana ak rek ña koy wax moom boo demee ci kitaabul xaafisa Tijaani Euh, gis naa mu indi ci ay lay indi sax benn asar bu mu jóge ci yonent bi xam na euh, xool sanat beeg yooyu la ñuy def waayam euh, laata doxul jannata ma laata ma sunnaaru musliman raani aw raa man raani nañ ko tegtaloo bëgg a wax ne kon ku gis yonent bi kon ku la gis bu dee booy jullit nangam nangam waaye lu ma ne xew masala fi xëyee la mën naa benn masala même que ni ci dëgg mën naa jum ci masala mën na caa bañ a jum gis yonent bi nag moom indi nañ ci dalil moom moom xam naa kii nag kii weddi ne mënta am moo war a indi ne itam amutoon jamono sa salafu saalih ci xeeti nar yi la bokk ndax da war ne yeguma ko mooy bul ne amut te lii may wax nag sëb sëriñ moo ko wax ndax boo demee ci sëb sëriñ ibnu taymiya ak ibnu qayyim ku ci ne gis naa ci say wax nga ne xam ma ne tekkiwul ne loola amut ibnu ibnu qayyim sax boo demee ci kitaabu roox am na fu mu wax ne nangam amutoon ci salafu saalih loolu wari war ne xam ko ndax salafu saalih bari na lu xew loo xam ne ñoom dañ koo fee fësalutoon beneen bi mu waxaat tam mu ne Ibnu Taymiya musta wax ne danaa gis lawhul mahfuz lii waxi tappale la gis naa lawhul mahfuz xam naa la ca ne man ci différence bu am solo gis wasiila la pour xam même bu fekkee nit ma ngay la ca ne bu ne gisuma ko itam mook ki ne gis naa ko benn lañ ndax ginnaaw mën naa xam la ca nekk rek euh, benn lañ wax gi mu wax tamit ne firaasa la naa nga xam Ibnu Taymiya bi mu ko wax amatu ko leer ci gàttal loolu la bëgg a wax loolu waxi tappale la li tax muy waxi tappale mooy ibnu taymiya ba mu koy wax loolu amagut te àgg na ci di waat di giñ naa looloo loolooy am nga xam ne xam nga giñ lu lu wér nit ki céng nga xam ne xam na ne noonu dong la mën a amee loola la nit ki sañ a giñ mbaa boog bu demewut noonu kon moom sëriñ ibnu taymiya du ko bëgg a jàppe fenkat mooy ko xam ne day waat loo xam ne wóoru ko euh, gis nga moxta la moor géey bu ngeen bëggee nopp noppalu say boo ngeen bàyyi ibnu taymiya da ngeen a jooyoog moom euh, ibnu taymiya giñ na ay giñ yu bare bare bari ne noonu la amee wax ne wax ne yàlla bind na ko ci lawhul mahfuz ñaari mbir a mën am benn mu wax dëgg mbaa mu fen bu ba muy wax loola loola wóoru ko woon ibnu taymiya daa wax lu dëgg ndax daa daa daa wax bind nangam ci lawhul mahfuz te loola néewu ci bu fekkee la mu wax amul rek kon la mu wax du dëgg ñaareel bi itam yëmut foofu mu di ko waat naa naa naa noonu lay demee te Ibnul Qayyim mi nettali wax ji yow firaasa ni ngay ni nga koy nettalee ak ni ko Ibnul Qayyim ay nettalee daa bokkut ñun li ñu ñor rek mooy mu wax mu xam lu ñëwagut moo xam firaasa nga ko moo xam nga tudde ko kashfu moo xam noo ko mën a tudde moom turi ñun ñoruñu maanaam li nit wax rek moo na ñor noonu tawilaat yi ngeen ciy defit du jàll ci kanam dof yi ngeen ko mën a def waaye du jàll ci suñ kanam ah, ci boppam nee na wax na ma ay mbiri baatin Ibnu uh, Taymiya ci ci même mbirëb boobu ngay waxee wax na fa ne wax na ma ay mbiri baatin yoo xam ne yenn yi gis na gis naa ko ya ca des maa nga koy xaar nga xam ne ak ñàkk wóor ak day nattam ne yooyu yëpp mu wax ko foofu tayit sax Ibnu Taymiya daa weesu foofu Ibnu Taymiya nit daan jóge ab dëkk jëm ab dëkk ay taalibe ma ko nett li boo demee alamul aliyin mu leen ni diw mee dëkk ba muy dem du àgg dana faatu ci yoon wi ibnu taymiya da daan yebal ay dongaam ne leen dem leen bërëb sàngam diwa nga fa te fekk gisu ko benn waaye nee na dañoo toog di waxtaan ci masalay diine yi nee na kenn ku nekk la nga wax ci masala bañ demee ci ibnu taymiya kenn ku nekk mu nett leen la nga waxante mu fekki wutoon jotaay bi benn waaye nee na damaa jóge dëkk ñëw eh, ibnu taymiya nu sërëk sàngam bàyyi nga fa nangam nga nangam di ko wax yoo xam ne ci benn dëkk la ne ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne sax Euh, moom fekkiwu ko mu di ko nekk yi ci li ko ay taalibeem waxal laa wax ne li nga xam ne ay taalibeem ma ko wax Ibnu Taymiya ci boppam saxal na ne waliyu mën naa xam mbir moo xam ne mbirum baatin la boo xoolee sax Muusa ak Xodar ak ak Xadir lu mu ca wax te Ibnu Taymiya Xadar ci ci waliyu la ko boole moom Ibnu Taymiya mu ci ñuy wax ne Xadar waliyu la waaye du yonent ci la bokk wax na ne kañ lay taw wala yu mën na koo xam ibnu taymiya nuzulul matar kon yéen da ngeen di bàyyi ibnu taymiya bokku leen lu ngeen gëm ci wàllu googu mënu leen koo défendre ci point bi ngeen toll daa bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy wax dañoo gëm ne xëy bu wàllu yu koo mën a yenn ci xuyóo bi wàllu yu da koo mën a xam kon lii même bu fekkonte ne li ngay wax foofu ci ibnu xayim euh, euh, noona la demee bu boobaa wax ji day des la neen mooy um tey mii mu saxaat saxaat gu leer nañ ñi ne wàllu yu mën naa xam xam gu wér loo xam ne xëy bu la wala euh, fàddu la ci ci béréb yu bokkul yu bari nag yoo xam ne ay taalibeem yu jamonoonteel moom ñoo ko seere euh, loolu tayit même Ibnul Qayyim demal demal firi alkashfu rahmaani nan la ko firi ba xam ndax moo yow li ngay waxam dit même madaari yu saalikiina boobay boo ca delloo ah fii itam tadlis yu bëree bëri ñoo fi am bokk na fi gëmloo gi muy jéem a gëmloo ñi ñi ne waa tasawuf dañoo topp ay sëriñ jàpp ne duñu juum te ñoom nag defuñu noonu loolu aw nar du ko gën a rëy ñoom ni ma leen xame ni ñu toppee Muhammad ibnu Abdul Wahab mosuma gis ku ko toppee nit seen yëf yi nii mu tudd nii mu tëdde yaakaar naa bu ñu amee genn kilifa gu ñuy wax goo ne moo ko tëral noonu Muhammad ibnu Abdul Wahab kepp la waaye borom xam ne jullit ñi li ñuy bari bari amaa Muhammad ibnu Abdul Wahab nii seen mbir yi tëdd mënuñu saa génn kenn ku ko tëralee nii kenn. yàlla daa def nag wër wërloo ak tappaleem dañ leen koo man dañuy topp mbir ba noppi duñ bëgg a wax ne loola lañu topp waaye xulaasam ak wahabiya mooy. Euh, méthode boo xam ne benn buurub saoudien moo komplo Mouhamed Abdul Wahab ñu tege ko nii ñu ko tegee ñoom ñi ay taalibe lañ ca loola loola loola itam ñu ko génn nag kon euh, li nga xam ne ci lañ ne moom la defee ne ñeneen da cee da cee ne xëy na moo tax muy wax nii ñun nag newuñu ci loolu ñun lañu ne mooy alxuraan ak sunna loolu lañu sëñ Tuubaa jàngal alkitaab wa sunna mbindam yëpp moo ci ne topp leen alxuraan ak sunna même sax ay taalibeem da leen a waxoon ne bu ngeen gisee may def lu jóoyoo ngërum Malik sax bàyyi leen loola te dem ci ngërum Malik Seex Ahmad Tijaan tamit maa balagakum anni fazinuhu bi shar'i la waxoon lu lu ne maa ko wax natt leen ko ci sharia sëriñi tasawuf yëpp tam boo demee ci chaatu bi ci latisaam wala nga dem ci at taaruf wala nga dem ci kitabul Qushayri risala yooyu yëpp alxuraan ak sunna mooy mooy seenu nattukaay lu waaye mën a indi bu dëpp wut ak moom nañ ko bàyyi kon ku wax la neen lu bokkut loolu te ñoom kilifa yi tasawuf yi waxaluñ ko seen bopp seeni teel bi itam lañuy toxalee ci moom du loola la ñuy mën a wax rek mooy da ngaa nar ah, gis yoonante bi nag du mbirum saa sëriñ wax na ko doom mbir la moo mbirum xaddis la moo xam ne dañoo teg ci lopp xaddis te xaddis bi itam avant wahaabi yi mosuma dégg ko ne daa daif na man gisaguma ko ku ko tax daif avant wahaabi yi mosuma koo gis kon bu fekkee hadis bi da laa wut dafa màbb sam ngir dafa màbb la la say kilifa wax bu ne gaa yi dañoo topp ay sëriñ bu bu leen ko jiiñ ah, gaa yi sëriñ sa lañ leen toppaloo mooy alxuraan ak sunna léegi nag yéen yii ngeen di wax fu mu nekk ci alxuraan ak sunna man moom laay laaj maanaam yii ma dégg ngeen di wax fu mu nekk ci alxuraan ak sunna lay yi ngay lay nag Omar di futoon lii loolu doo lay ci diine boo xoolee ci xeeti karamaare yooyu sax daanaka yaakaar naa même Ibnu Taymiya boo demoon ci mbindam da nga gis moo wan la ci taabi'oon yi lépp ci ndax léeg-léeg itam ni ko nit ki soxlaa léeg-léeg du doon benn ñun li nu ñor mooy gis yonent bi mën a sax tashriic lu bes nak mom nun sax dañ ko waxut moom sëriñ tasawuf ñoo njëkk a dàq ni kenn mën a tashriic wird ñun ñëpp ñu ne tashriic ndax wird mom wala ak sikkar loolu yoon bu tashriic nak ko bu fay jóge kon lu bes da cay neewut gis na yoon mom mu ne ma am na nangam am na ngëneel sàngam loolu mo mën naa am bu dee itam da nga bëgg wax ne gaay dañoo wax ne ku jël saa wird dem na àjjana wala dana ram nangam nangam waxuñu ko noonu bàyyi même Cheikh Ahmad Tidiane mi ngeen gën a yeb boo ci demoon wax bi ngeen di wax ne nee na ku jël wird bi rek da ngay daal di bàjj loolu loola du dëgg ko noonu da caa ay sart te sart ya yem mi teg ko xam da nga xam ne moo ak li nga naan ku topp yonent bi dem àjjana benn lañ ndax sart yam indi ku ko ku ko def lépp topp yonent bi ginnaaw nangu nga ne yow ku topp yonent bi dem àjjana te waa ji sart yi teg ku ko def topp yonent bi kooka bu ne ko def lii dem àjjana war nga koo mën a gëm te moom sax daa waxul loolu ndax moom al makru al amnu min al makr ak yeneen sart yu bëree bëri yu mu wax euh, da nga ci dégg ne waxul rek ne ku jël wut bi da dem àjjana kon day wax joo xam ne da ngeen koo teg ci ak wër-wërlu ak nar ak nekk ci loo xam ne da ngeen koy nëbb ba noppi di ko jiñ keneen